بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اكسنيل أقدار يلاو سلف بقاء بإيه لفيك يلاو بسم الله اكسنيل أقدار يلاو سلف بقاء بإيه لفيك يلاو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 داري مراسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أثاري ملاسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقل مثال يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا أني وأن كردي تدار يا الله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 isan yuqallidu للتكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الإداء بلاسي لاخترت يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الإداء بنفسي لاخترته يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل في يا متكبر تل كل يا الله يا خالق الخلق لغما أساء أبدا بالبر والبر مقتدي ورلوان يا الله يا بارع الخلق خذ لنا فدونا سن وخن لي الأجر للجماعة يا الله أنت المصور قل للنبي بصارا وصورا ليادو المكر يا الله خلات لي كل سن من قد أتيت به لسأت بسكريا يا خضار يا الله خلات لي رديئك دعي بلا سبب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي min azul asalaamualeykum wa rahmatullahi taala bokk jullit yi bokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu ak ndigalul al cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul aam lil mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naa li mu ci liggéeyal Serigne Touba lépp mu ko nu mu ko bëggee kon ci ndigalam dañ fi ñëw tey jii ngir jéem ko ndax mënuñ ko ngir xoolal ko liggéey bi fi mu la kon ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp ci weeru tëdd yi di tàmbalee nuyoo gi ak cant gi nag ci sëriñ Maam Thierno Mbacké mi nga xam ne mooy jëwriñ liggéey bi li waral cant gi nag mooy da koo jëf ndax keroog ba yàlla dogal ndigal li agsi ci moom ba tey ji dafa bàyyi ay yitteem bàyyi ay soxlaam moo ñu ko àndal. buñ ci tuddee maam Cheikh Seye ak ñi ci des ñëpp mooy aljabhatu aljabhatu bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha moo doon tuddee tur wi ngir fas yéene àndoon ci liggéey Serigne Touba bi tàmbale ko ci université kon mu ngi koy sant moo ñu ko ànd ak seen taxawaay ndax keroog ba suñ bi tegee xeer la ca bu njëkk ba. benn yoon laa fi dellu si waat te bi ñu ànd te mooy bi ñu taxa taga tàmbali liggéey bu kon loolu defuma ko rek ci eh, ne dama mu jot ndax liggéey bi moom xam naa ni ko sëñ bi itteewoo kon moo gën a ñëw ci lépp waaye nag doyloo gi moo ko ci doyloo moo waral ma boobaay léegi maa fi dóor di si waat kon ñu koy sant bu baax di ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom rek la ci liggéeyal yàlla na ci daje tawféex day cee ngërëm moom mboolem bokkiteel bi nga xam ne ñoom la àndi liggéey bi ndax loolu yoonu soxla woon na ko lool ndax dana yomba liggéey bi dana ko jàppandal kon ci tuuru sëriñ bi rek ginnaaw buñ fi agsee ñëw fi ak mbégte mu rëy ndax liñ fi fekk muy loo xam ne kawe na suñ jort ndax eh, kenn mënutoon xalaat ne ci diir bu gàtt bi liggéey bi dina agsi fii ndax motagul at te gis ngeen bâtiment yi ni mu yëkkati ko fi mu àggee kon loolu dañ ci sant bu baax a baax andi cee ngir rek ndax sëriñ bi liggéey bi da ko itteel te ñor ko mu wax ma ci ay kàddu ci ci wét wax ma ci ay kàddu ci biti kon loolu euh, ndegam moo fi desoon ci naari sëriñ Tuubaa yi nag kon day mel ni yitte jëpp dañ ko war a jël jëmale ko ci kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ci tàmbalee cant gi nag ci euh, waa Touba Masoro bi nga xam ne Serigne Abdou Ahad Ka moo ko jiite ndax liggéey bi jaar naa ko xool naa bitim yëpp waaye lépp liggéey bi dëppoo naag ni ñu ko séntu mu ëpp ko kon ñu koy sant bu baax ci turu Serigne bi ndax yaakaar ak moo taxoon Serigne bi dénkoo ko waaye nag ni ñu ko séntu woon na fa di gërëm itam waa Touba ci kanam ñoom ñi nga xam ne. ñoom itam dem naa ci seen bâtiment bi ñu leen ko joxe léegi yàggut waaye seen jitte ak seen positif ndax ñoom itam jël nañ benn bâtiment ci majaalis bi di ko tabax kon ñoom itam ñu leen di sant ci seen positif ak seen taxawaay ci ni ñu defee ci mboolem liggéeyu Serigne Touba bépp di leen ñaanal bu li nga xam ne yéene nañ ko jëfal Serigne Touba ci dëkk bi ci ginnaaw Cheikh Mouhamed bu taxaw yàlla suñ boobu kàttan na leen lépp ñu àggale ko di gërëm itam kuréel bi nga xam ne ñoom itam yàlla dafa def suñ borom dimbale leen defal leen xéewal ñu koy dellowaat yàlla suñu borom di ko sant Serigne Touba ndax i'malu ala Daawuda ak jëf ak cant diis ko wax ci làmmiñ waaye cant diis ko jëf kon ñoom itam bu leen yàlla defalee tawféex defal leen wërsëg ñu delloo ko ci yàlla delloo ko ci liggéey Serigne Touba ñoom itam gis nañ liggéey bi fa mu toll dal na xel bu baax ñu ngi leen di gërëm ñoom itam di leen sant di ñaan ñoom itam ni ñu fas yéene ànd ak sëñ bi ci liggéey bi yàlla na suñu borom dimbali leen ba lépp mu àgg euh, li ñuy wax taqdimul mutaaxir rek moo dal mooy Serigne Cheikh Bakim Cheikh Bakim moom itam euh, dem naa dem ngeen ci bâtiment ba wër nañ ko dem nañ ci jàkka ja dem ci centre de santé ba moom itam ñu koy sant bu baax di ko gërëm wax naa ko léegi ne ko da nga am tawféex ndax tawféex bi mooy Serigne Abdoul Hakim ku ko xamoon xamoon diggam ak Cheikh Mouhamadou Mountakha wóor na ma ne bu fi kilifaam nekkoon di Serigne Abdoul Hakim dana taxaw ci ginnaaw Serigne Mountakha taxawaay bu toll nii waaye nag moom itam yàlla def na tawféex ci moom ndax tawféex ji mooy mbirum Serigne ci pëstee fa lay rawante yàlla defoo ko tawféex te xam naa ko bu baax ndax ñoo bokk noonu ne ci kër Serigne ci daara ji waaye benn melokaan bi laa ma saxam ci moom kon mooy itam pëstee ak jomam ak yitteem ak xam na waajuram doon bëgg-bëgg mu gàttalu ko ci ñu ngi koy sant moom bokk taalibe yi topp ci ginnaawam ak doomam di ñaan ak ñëpp daal liggéey bi daal ni ñu ko tàmbalee nii te rafet njortu ci ne balaa déwén dana fekk ay di fi jànge yàlla ko suñu borom mottali te dal nañ ci xaritam ndax li ñu fi gis xam naa bu ñu doxaatee ay weer dana ci ab bâtiment yu nopp yu mën a ubbi di gërëm bi nag ñi nga xam ne ca tàmbali liggéey bi muy Ceew Kanji architecte ñoom ak Ibrahima ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo ne ci liggéey bi euh, di ko taxaw ànd ko commission technique bi nga xam ne Serigne Mame Thierno moo leen fi teg ndax am na ay ingénieur lu ma ñett lu bokkut ak bureau contrôle bi ko taxaw ak euh, ay techniciens yoo xam ne mën na ñett wala ñeent moom itam ñoo xam ne dañoo sax ci barab bi ñu bokk ñu ànd ak ñi fi bàyyi. ànd ak architecte bi nga xam ne mooy saytu liggéey bi di xool ba xam ndax lim rëddoon xalaat ko mel na noonu lépp te ñoom ñoo seeral seen bopp ne lu ci ne ci liggéey bi norme yi ñu leen waxoon matal nañ ko kon nag ñu ngi sant ñëpp boo fàtte rek euh, nga xam ne rek li am solo mooy di jëf ngir yàlla jëm Sëriñ Tuubaa ndax wakafa bi wakafa billaahi shahidan Sëriñ Tuubaa nag Cheikh Abdoulaye Mbacke daa wax ne gis bi dafa neex lu waaye jëf ngir moom rek xam na ko. kon nag somb bi moom day day day day bokk ci li nga xam ne rek moom la alxuraan di wax ne innal abraara yashrabuun min ka'sin kaana mizaajuha kaafuuran aynan yashrabu biha ibaadullahi yufajjiruunaha bi nasri Cheikh Abdoul Ahad ba muy somb somb yu dugg xam ne xol ba réew na Cheikh Mahamadou bi mu agsee yuufuuna bi nasri ja ci la tàbbiwaat mooy ah, xam ne lii ba ay ay téeméeri at dañ koy jëriñoo noonu la kilifa war a def yuufuuna bin-nazri wa yaxaafuuna yawman kaana sharruhu mustatira wa yut'imuuna at-ta'aama 'alaa hubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiiran innamaa nut'imukum li wajhi llaahi laa nuriidu minkum jazaa'an wa kon loolu rek mooy li ci am solo di jëf ngir yàlla di seeral yàlla di jëf ngir Sëriñ Tuubaa te xam ne Sëriñ Tuubaa kat képp ku koy jëfal ku ne waxoon na ne lu mu waay defal. wax na ko sëñ Masamba Diop Samb ne ko dana ko Masamba mbaa xam nga ak Dame Sane la Dame Sane mooy dencukaay mu ne kon de mbàkke ñu fas yéene doone lantinoor lantinoor mooy lu accès jàll ci bi mu ne ko loolu képp koo xam ne def ko danaa la ko dencal ba fa nga xam ne kenn mënu fa am amul diw ne la ma dénkoon lañ kon nañ xam ne liy jëfal suñu Tuubaa luñ ko koy dénk rek la dénk gi nag ñu noppi nañ ci pay gi nag ci loxoom la kon nag ñu ñu bi yëpp ni ko sëriñ bi santaane ci bi mu woote màggal ni ñu tàmbalee liggéey bi ñu ngi ci soññaa taalibe bi suñu tubaab lu ci waay jëfoon ren ko fàtte te gëm ne ci déwén ci la sa aay li fi liggéey bi àggut ba ñu ko sëñ bi ba sëñ bi santaane waat leneen nañ xam ne ab taalibe bi nopp ndax euh, taalibe suñu tubaab yi suñu borom defal nañ li gën a jafe defal nañ wërsëg ndax suñu bi yoon a fàggoon ndax moo waxoon ne a'adda ni jannaati adnin min taxtiha al anhaaru maaha al hijri moo leen ko fàggalu wëlbatiku rek jox leen xol yoo xam ne eh, seen xol yi day tàlle ndax xam ngeen ne alal dafa taq ci xolu borom moo tax alxuraan di wax ne wala yasalkum amwaalakum in yasalkumuha fa yufikum tabxalu wa yuxrij adxaalakum waaye Sëriñ Tuubaa ak ta ay taaliyoon suñu borom musal leen ci loolu seen xol dafa nangoo joxe li ñu nangoo nangoo joxe ñoo ëppoor sa ñëpp kon nañ xam ne joxe du tax ñàkk ndax suñu borom moo wax ne eh, lépp loo jëf ngeen man rek dinaa fóotal lu ko ëpp kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan في